tey nag euh, mën nañoo wax ne li ëpp solo ci li diine ji am moom lañ fi indi muy alquranul karim alquranul karim euh, mooy li gën a foor ci li yàlla jox yontu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa ñi nga xam ne ñoo koy taxawu di ci di ko saytu ci réew mi ku tudd daaray kokki di nga tudd daara ahmad saxir ci route de Boune nga xam ne mën nañu wax ne daara yi ëpp li ñuy génnee kaang ci réew mi ci la bokk atum ren tamit ñu def nañ daan def mooy am na ñu téeméeri kaang ak fukk ak juróom-ñett alhamdulilahi rabbil alamin loolu waxuma la def émission ci loolu waaye réew mi yëpp ko waroon a feete waaw xafla national la waroon a doon maanaam fête nationale la waroon doon waxuma la nag ak yeneen yi aju ci biir kon loo ñooñu lañ fi dalal tey fas yéene waxtaan ak ñoom ci daara ji ak nan la ñuy def ba am résultat yooyu kilifa diina gu mag gu ñuy wax Baye Alaaji Ousmane Dramé dëkk ca kër Sàmbaraxin Dramé nekk kilifa diine goo xam ne li mu taxawee ci diine ci Saalum ak ci biir réew mi eh, ñëpp teg nañ ci seen bët mu làqu génn àddina ci semaine bii naka noonu Baye Cheikh Diop Ngunta di rakku Baye Dame Diop Mansour nga xam ne magum lislaam la woon bëggoon ñu ñun ñi waaye nag bëggoon suñu doomu ndey Cheikh Abdoulaye Guèye mii def tafsir bi nga xam ne way juróom la woon xaritam la woon kon ñaari kilifa yooyu ñu ngi leen di jaale réew mi yëpp di leen jaale diine ji ñu ngi jaale Baye Dame Baye Dame Diop di jaale waa kër Ngunta yëpp di jaale nag particulièrement suñu xarit suñu frère Cheikh Abdoulahi Gaye ndax ñoom ñaar seen diggante diggante bu xóot la woon ñu ngi ñaan yàlla yàlla xari leen aljanna yàlla jéggal leen yàlla yërëm leen kon Cheikh Mouhamad Baara am nañu mbégte lool ci gis la am nañu mbégte lool ci jàkkaarlook yow fii ci émission Al Amine ndax sasu réew yi nga xam ne yaa ngi koy bayal diine ji nga xam ne tey fu jullit di wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah fierté am nga ah. eh, institut ahmad saxir loo fierté jullit yëpp la marhaban bik eh, eh, mm-hmm. ngi leen di nuyu mm-hmm. nuyu waa kër nuyoo kilifa gu màgg bañ ci suuf ñëpp mhm. di nuyu waa réew mi yëpp mhm. di jiital ci nuyoo bi kilifay diine yi fi taxawee diine ji mhm. eh, bëgguñoo lim dëgg la waaye ñoom ñëpp ñi ne ci boppu diine ji di nuyu itam njiitum réew mi ak mboolem ñi koy jàppale ci liggéey bi waaye di nuyu waa ahlul quraan ñooñu daara di jiital ci ñoom sëriñi daara yi Euh, di nuyu waa Sénégal yëpp. jërëjëf Haj Malick. allo bikum ñu ngi leen di dalal fii. wa bikum waaw euh, marhaban. wa bikum Oustaz Mouhamed El Amin Daraame. Mm-hmm, mm-hmm. asalaamaaleykum wa rahmatullahi mm-hmm. euh, di la nuyu bu baax a baax a baax. di am mbégte ak ñëwaat ci émission bi. émission bi bu am solo bi nga xam ni. dëgg yàlla képp ku bëgg lu baax da nga koy faral di topp. ndax non seulement thèmes yi am solo yiñ fiy waxtaane waaye anam gi ñu koy joxee it. Euh, ñu ngi lay ci ndokkeel bu baax a baax a baax a baax euh, di la nuyu di nuyu waa Sénégal yëpp di boole suñu nuyoo rek si nuyoo ak sëñ bi ndax nuyoo bi matale na loolu wax na yàlla waaw dëgg la ak kon ñu yegg seeg jàmm insha allah dëgg la dëgg la dëgg la waaw euh, xam naa ne ku am journal bi dina baax parce que lépp lu daara ji def ren ci ay réalisation ci wàllu mokkalloo alxuraan ci wàllu xam-xam ci wàllu économie dafa mujj sax dafa mel ni benn société la boo xam ne yu bëree bari moo ci aju donc journal bii nii def nañ ko ci en français xaw ma nag nan la ñuy def ba ngeen am ku ko soxla am ko waaye lépp lu daara ji liggéey rek tënk nañ ko ci journal bii nii donc euh, euh, Cheikh Mouhamad Baara mhm. journal bi dafa tàmbalee ci fawaidu katatibul quraniya mhm. maanaam njëriñu daaray alquran yi mhm. mais ci ubbi gi am kàddu goo xamante ne ni yow mi nga xam ne yaa jiite daara ji danga ko jëmale ci mboolem jullit yi jëmale ko ci waa daara ji ndax mën nga ñu tënkal kàddu googu incha allah mm-hmm. eh, oustaz Mahamad Amin mm-hmm. eh, li nga jëkkee muy fa fawaidu kataatibul quraaniya mm-hmm. noonu la journal bi tudd eh, journal bi bi mu dalee génn ak léegi ren mooy fukkeelu at bi ak benn Euh, dañoo gisoon ni ñu di ko génnee euh, di ci feeñal lépp loo xam ni daara alquran yi ñu ngi koy liggéey waaye rawatina daara Ahmad Sakhir Lo euh, kon noonu la journal bi tudd kàddu gi nga xam ni moom lañ fa ubbee nag xëy na mën nañ cee laal tuuti rek leneen li ci des waaw comme ku soxla journal bi bu ko amee waaw ndax bi nekkul buy jaay. dëgg la mu juddoo ba léegi. waaw ku agsi daara ja rek bu ci yàlla àndee. waaw boo fekkul mu jeex ñu jox la. <laughs> waa incha allah incha allah. waaw. Eh, alhamdulilah rabbil alamin mm-hmm. maanaam eh, danoo bëgg a feeñal foofu rek. Mm-hmm. wane ni nattu yi nga xamante ni yàlla teg nañu ko. Mm-hmm. Eh, ci at mi. loolu lu yàlla tuddoon la bu yàgg. léeg-léeg nag ñun ñu dem ba xëy na àdduna jaay ñu mhm. ba lu baree bari duñ ko seetluwaat waaye bu ñu demee ci sóoratul baqara borom bi dafay wax ni mhm. fazkuruni azkurkum mhm. waskuru lii wala takfuru dee leen ma fàttaliku dee leen ma tudd ma di leen fàttaliku dëgg la mu ni dee leen ma sant te bu leen ma weddi dëgg la euh, mu teg ca yaa ayuha alladina amanu stainu bi sabri mhm. dëgg la yéen ñi gëm yàlla mhm. na ngeen dimbandikoo julli ak muñ dëgg la wane nag ni yàlla mu ngi ànd ak way muñ mhm. eh, foofu li ñu fi war a gën a bàyyi xel mooy ni dafa mel ni ci jamono yu mujj yi àdduna bi yëpp wërngal këpp dañoo fàtte yàlla dëgg la àdduna bi yëpp wërngal këpp dañuy eh, wëy ci lu naqari yàlla mhm. te làqatuñ ci dara dëgg la eh, loolu nag bu ñu fa àggee mhm. faaw ay nattu ñëw moom la yàlla wax ca ay ya ca topp mhm. wala nabluwannakum bi shay'in min xaw fi wal joo ba ay yi jeex dëgg la bu ñu xoolee li nga xam ne mooy covid 19 ak si tey àdduna bi yépp ba ñi doon fëgg seen dënn xam ni yàlla rek mooy yàlla Euh, ñi doon wane xam-xam walla am am xam ni hmm. yàlla rek mooy yàlla euh, yi mu boole ñeent ñeent yi ñëw ci aaya bi yëpp daf ko boole ndax mu ngi jël bakkan yi sikk amu ci taxawal na lépp luy économie sikk amu ci mbéy yi yàqu na euh, loolu itam sikk amu ci su ko defee daanaka ñeent yi nga xam ni moom la yàlla tudd ci aaya bi yëpp loolu ñëw na euh, tënku ci Covid 19. wallaahi kon daanaka loolu lañu ñu ubbee. Mhm. Euh, journal bi. Mhm. wane itam ni nag nanu nanu muñ. te mhm. delluwaat ci sunu boroom. dëgg la euh, su loolu amee rek incha allah yàlla moom dina teggi nattu yi ndax ni ko yonent bi waxee. nattu yu mel nii du ñëw. lu dul ni ay bàkkaar moo koy waral. dëgg la waaye itam du fi jóge. lu dul ni dañuy tuub delluwaat ci boroom. dëgg la. Eh, kon loolu lañu ñu ubbee journal bi. am na solo waaw am na solo Asmalik dégg laaj bi waaw dëgg la leer na waaw Asmalik. waaw lan nga ci taaliq waaw oustaz jërëjëf euh, comme ni ko sëñ bi ubbee. Hmm. nga xam ni ren lu bëri na nga xam ni moom lañ daan doxalee. Hmm. dafa changé. Hmm. pas waa daara ji kese mais àdduna bi d'une manière générale. surtout dëkk bi. te li ko changé yëpp mooy Covid 19. dëgg la su boobaa nag olof dafa am léeb bu muy wax mooy luy ay nag luy ay di jàmbat. waaw lépp lu nekk ay rek nit ñi jàmbat ko. waaw kon indi jàmbat gi muy benn. Mhm. muy Covid 19. Mhm. mbir nag bu amee euh, ni ko ñiy faral di jàngat ñi ñuy tuddee ay analystes yi di defee. Mhm. mais faaw ñu xam la moo ko indi pour doog ko mën a saafara. waaw léegi nag lu ko indi nag euh, dëgg yàlla journal bi def nañ ci ab rôle. bind nañ ab maqaala. ab benn texte boo xam ne ci loolu la jëm. waaw dëgg la. diagnostiqué jàngat bu baax a baax a baax. Mhm. li jàpp ni moom moo moo ko fi indi. waaye it xool impact yi nga xam ne moom la def ci wàllu gu nekk. Mhm. mu nekk wàllu diine. Mhm. bi nga xam ne moom la ñu gëm. waaye ci côté àdduna bi nga xam ne it moom la ñuy dund. ba pare it joxe ay proposition yi nga xam ni euh, dina ci baax lool. ngir ñu soobu ci. waaw non seulement ngir mucc ci lii. waaw waaye ngir gën a jege borom bi ba nga xam ni xeetu nattu yi dootu fi dina fi géej loolu lool lool dëgg la ndax ni ko sëñ bi waxee yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxee ko ni aw nit mhm. du ñu dëkkee di mooy yàlla mhm. di ko feeñal nag mhm. lu dul yàlla dina leen nattoo ay feebar yoo xam ne ña leen jiitu woon xamuñu ko dëgg la mu ni covid 19 moom ku yeewoon suñuy maam yu mujj yi rek xamuñu ko woon waaw waaye gis nga ba mu ñëwee lim gàllankoor dëgg la donc loolu rek mooy kii bi te ku gisoon ni àdduna bi doon doxee ci jamono yu mujj yi waaw non seulement dañoo dañuy def lu naka su dul noonu. waaw yematuñ ci di ko feeñal. waaw waaye même ku ci nekkul. waaw dañ lay mujjee xalab. dëgg la. bañ ci bay tëral ay loi yoo xam ni. Mm-hmm. mën naa nekk loi international mm-hmm. suñ demee ci ay réew di propagande waa réew moom ngir ñu jéema jël loolu appliqué ko seen réew. loolu moom mooy feeñal lu bo feeñal. Euh, ñaawteef. waaw fii ala qimmatiha mooy ca kaw ak fa fa mu gën a kawee. dëgg la donc nag lu mel noonu bu amee. Mm-hmm. faaw borom bi ñëwaat wane ni hee. kon nag faaw ñu delluwaat. dëgg la. yàlla moom du ñu toppee dara walaw yu aaxidu llahu naasa bi maa kasabu ma taraka ala dahriha min daab su fekkoon da leen di toppee ci li ngeen di def benn bu ngeen def mu indi waaw su boobaa kon kenn du desati ci kaw suuf dëgg la waaye nag day bàyyi rek mhm. walakin yu axiruhum ila ajalin musamma mhm. loolu nag wuutewul su demee ba mbir bi nag nar jaxasoo lool ba kenn xàmmeetul mhm. lu euh, lu baax ak safaanam su boobaa nag yàlla day ñëw li yamiza allahu alxabitha min at-tayyib su boobaa mu wane ni lii lu baax lii mooy safaan daal loolu lañ euh, jël jàngat ko ren tënku ko ci am maqaala boo xam ni ku jël journal bi incha allah taala dina ko ci fekk ci anam gu mu gën a yaatu incha allah ak ci ñaari wàll yi ñu tudd léegi mi wàllu diina ji niñ ci mën a jàngat bu baax a baax a baax comme ci wàllu àdduna bi it niñ ci mën a jàngat bu baax a baax a baax incha allah ok jërëjëf Haj Malick vraiment man bi ma lire texte bi am na solo pour man lool mm-hmm. parce que dañu tënk fii juróomi mbir Mm-hmm. yoo xam ne ay duruus la maanaam ay bind yoo xam ne ñu ngi ko jëlee ci Covid bi mm-hmm. xam naa ne firi ko sax du ci du du ñu am jot gi mm-hmm. waaye du ñàkk rek boo ko liiralee jànkat yi dina leen amal njëriñ na premier dars biñ ciy jëlee mooy ad-durru wa nafu bi yadillahi waxda wa laysa bi yadi ahadin ay wa ay maxluqin mahma kaana saalihan boobu mooy premier dars bi ñaaru dars bi mooy man la yumkinuhu an yadfa anka charra dunia lan yadfa anka charra al axira ñaareelu bind baa ngi noonu ñetteel bi imtisaalu awamirillah huwa xablu najat alwahid mm-hmm. ñeenteel bi mooy jamiu ma naha allahu anhu yumkinu ijtinaabuhu mm-hmm. euh, juróomeel bi mooy alquwatu almutlaqa bi yadillahi la bi yadi albachar mm-hmm. xam nga nag wax dëgg yàlla li benn bu ci nekk bu ko nit ki développé dina am solo xam nga euh, fii euh, yàlla lu mu digle rek. nit mën na koo def. xam nga tey ci Europe xoolal at yu mujj ni ñu sonalee woon nit kuy muuru. Mm. di ko xeex di ko xeex. mais tey waxuma la àddina bi ñëpp a muuru waaye ñëpp a def niqaab. Mm-hmm. niqaab boobu nga xam ne sax moom da lu sori la woon. Mm-hmm. tey ñëpp a ngi koy def tey muuru jigéen ñëpp ngi muuru ba mu daj ba pare muur seen bët doo ngay feeñ. Ah. loolu boo ko diine diglee kenn xamul kañ la ak loolu boo ko yaatalee leneen ak leneen mhm. donc texte bi moom am na solo lool ku ku am journal bi di nga ci gis xam-xam euh, sëriñ bi mhm. léegi euh, ren mhm. daara ji dafa am téeméeri kaang ak fukk ak juróom-ñett mi atun wa tamanta ashra xaafiz loolu nombre bu rëy la bu bari la macha allah nombre boobu Euh, nan ngeen def ba mën koo am ci at mi encore ak at mi ni mu méttee ak ni mu jafee daanaka euh, njàng yëpp taxaw na école yi tëj nañ lépp a taxaw waaye ànd ak loolu yëpp defe naa li ngeen amoon daaw yokkaat ngeen ci ren ah mm-hmm. Mm-hmm. waaw yéen atu corona bi école yi tëj mm-hmm. nit ñi toog seen i kër yéen ci ngeen amaat beneen résultat boo xam ne dafa yokk loolu nan ngeen ko mën a jëmmalee waaw alhamdulilah oustaz Lamine mm. Eh, yu bari mën nañ koo jàngat ñu waral lu mel nii mm-hmm. eh, ci résultat yi ba tax xëy na arrière wu ñu ñu jëm ca kanam waaw lu bari mën na koo waral mm-hmm. eh, bi ñu ciy jëkk def ñu sant bu baax a baax mm-hmm. équipe yi nga xam ni ñoo seq liggéeyu daara ji yëpp ndax mosuñoo noppalu mosuñoo at ndiku mais rawatina at mii ndax at mi dafa nekkoon at mu jafe mhm. waaye jàpp naa ne ci jàngukaay yëpp la jafe waaye ci daara la gën a jafe mhm. moo tax euh, le 2 mars mhm. bi nga xamee ni covid bi dugg na ci réew mi euh, wàll yi séq daara ji yëpp secteur yëpp dañoo daal di daje def benn euh, jataay bu yaatu jataay boobu nag direction bi daf caa daal di jël ay dogal yu am solo dogal yooyu nag la ñu di wëyal ba suñu jonni tey ba insha allah le 18 bii ñu jëm la mm. xale yi war a ñibbi seen kër pour mm. jël seen vacances waaw dogal yooyu bi ci njëkkoon mooy mm-hmm. ñu dakkal bépp wisit boo xamante nii mu ngi bàyyikoo ci waajur yi mm-hmm. jëm si ci daara ji wala ku mu man di doon maanaam daal daara ji moom mm-hmm. kenn dootu leen seet seet waaw ku nekk na toog sa kër comme ni ko islam santaane waaw dëgg la ñaareelu dogal bi mooy que ni eh, mbooleem hadiya yoo xam ni mm-hmm. waajur bi da ko doon jël di ko indil doomam mm-hmm. loolu itam ñu dakkal ko mm-hmm. ndax eh, gis nañ ni ku nekk jële mbuusam def ca dara pour indi foofa itam dara mën na fa seenne wala dara mën fa jaar eh, ñetteel bi mooy ni bépp ràndiwu bu ndonga bi doon am ñu dakkal ko léegi bu dee rendez bu mënul ñàkk oto daara ji mooy jël ndongal yi yóbbu ko ba ci hôpital bi ñu taxaw ko mhm. mu def rendez ñu jëlaat ko ci oto bi indiwaat mhm. bépp ndonga bu ñeenteel bi bépp ndonga boo xamante ni mbir mi fekkoon na ko ci biti mhm. moom it dootul duggaat dëgg la toog seen kër ba mbir yi jàll juróomeel bi mooy bépp liggéey boo liggéeykat boo xam ni eh, maanaam confirmé wu ci biir daara ji Eh, du du du doo ko man mhm. da nga bokk ci ñi nga xam ne dañ daan liggéey direct ci xale yi waaw ñooñu itam ñu toogloo leen waaw ak def suñu kemtulaay kàttan mhm. ci jàppale leen ba toogloo googu itam ñu bañ ko yëg eh, ni ko njiitum réew mi sàkkoo mhm. kon yii dogal moo jëkk a rot eh, ci ci ci direction bi mu rotoo itam alhamdulilah waa daara jëpp respecte ko Eh, ndongo yi wala waajur yi wala liggéeykat yi mm-hmm. ndonga itam nangoo topp bu baax ndigal mm-hmm. ndax eh, génn yi nga xamante ni xëy na dañ nañ leen ko may mm-hmm. yooyu sax dañ koo dakkal eh, ñu tënku bu baax a baax ci matuwaay yi nga xam ni waa kër docteur joxe na ko ci wàllu raxasoo wàllu takk mask ak wàllu sel bi mel noonu yii yëpp nag Euh, bi biñ ko defee léegi amatuñu fenn soxla fu dul nag sëgg ci ndongo yi ak liggéey bi euh, rax ci dolli naka jekk ñun min nañu loolu waaw euh, daara moom ku ko wax wax suñu góor ga c'est Oustaz Alioune da daan wax ni daara dar waaw waaw sëriñ daara moom. <laughs> da koy dar waaw da koy dar. <laughs> waaw comme loolu miin nañ ko. ndonga itam miin nañu toog benn place. waaw xanaa li ñu miinul rek mooy gëj a gisee ak seen waajur yi. Mhm. mais nangu nañu dogalu yàlla ñu muñ ko. Mhm. waajur yi itam am kóolute bu mat sëkk ci daara ji sonaluñ ci dara. Mhm. léegi ñu sëgg ci liggéey bi nag. Mmh. léegi dara desatu fi lu dul liggéey mmh. ah loolu nag euh, jàpp mmh. naa ni ci ndimbalul yàlla ndax lépp moom borom bi la euh, surtout nag alquran moom alquran moom ku ko am rek xamal ni yàlla la ko may dëgg la moom ngóor a ngóor a jëmu fi waaw waaw da ngay góorgóorlu sa kéemtalaay kàttan rek li ci des si borom bi àggale dëgg la euh, ci xamee ni fa la ñuy war a seete ñi mokkal waaw waaw xam nga daara ji daara ju mag la juróom-ñaar fukki jàngu ñoo fi ne waaw jàng bu ne boo téyelee xale mm-hmm. ba wóolu ko mm-hmm. daa am foo koy yóbbu nag ci tax fiis mm-hmm. pour ñu war koo saytu xool ndax moom mokkal na wala déet léegi nag dafa am date boo xam ne buñ fa àggee dañuy arrêté foofu waaw ndax ña jot a nekk ñu mën a àggal ci xool beeg yooyu ñu jublu nag ci waajal pour pour pour dem kon résultat yi daal waaw euh, jàpp nañ ni lii moo ko moo ko maye alhamdulilah naa liñ ciy dolli sax mooy que ni nekkul Euh, téeméer ak fukk ak juróom-ñett rek ñi mokkal. Mm-hmm. mais nañ ci pilisaat am na juróom-ñeent fukk ak benn ñoo xam ne wàcc nañ ci année bi. année scolaire deux mille dix neuf am na téeméer ak juróom-ñeent fukk yoo xam ne wàcc nañ. waaw alxuraan doon ci mokkaluñ. ne dañuy toppat jë toppaat jëm déwén toppaat waaw waaw. kon daal xam naa bu fekkee. léegi daara ji yëpp yëpp yëpp ña fa nekk ci dongo nu mu toll. fi ne ñu ngi ci deux mille deux mille taalu. ñaari junniy taalibe ñoo fa nekk ñaari junni yooyu noonu bi corona bi duggeek léegi am ngeen kaa kaaw corona ci daara ji. déedéet dox dëgg yàlla ñu ngi ciy sant yàlla. lu tax amu leen kaa xanaa da ngeen am saa yu ngeen di jàng ba corona du jege daara yi wala déet. dim dimbalul yàlla rek xam nga <laughs> euh, ku yàlla sàmm rek nga sàmm. te li nit ñi euh, xamul euh, Oustaz Lamine. Mhm. mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. dafa wax ni. Mhm. kii sàkku borom bi tabaraka wa taala dafa gërëm li mu nekk ndeysaan ba daf koy boole ak malaayika yu koy yiir seeni laaf allahu akbar mu ni ñëpp dañ koy ñaanal di ko jégalul yàlla ba ci jën wi ci walla géej géej kooku nag man euh, ku man daal comme yaa borom bi nee na moo ah. mooy wallaay jox tey jox nga ma bind tey lii lépp lépp leer na ci sama lii nga wax nii <laughs> maanaam comprendre naa lépp léegi tey la ilaha yonent bi wax na lépp ah, sallallahu alayhi donc loolu sant yàlla la parce que fu ñaari junni daje ah. nekk di nekk fa dëkk fa ah. ak coow li muy bari bari benn ka amu fa wax dëgg yàlla ñu def résultat bu toll ni def na Alaaji Malick loolu lu ama am solo la waaw lu am am solo la ginnaaw bañ ci sant ñu fàttali ne yow ci daara ji nga mokkale ba tey ci ñi nga xam ne ñoo yëlif daara ji <laughs> sëñ bi wóolu la da <laughs> nga nga bokk ci leer naaw daara ji tey la nga fa mokkale di fa jàngale di fa liggéey léegi li sëñ baax loo ci wax ci taalibe yi lañ bokk waaw <laughs> ah, euh, alhamdulilah euh, xam naa ni euh, résultat yi comme ni ñu ko bokkee gisee mhm. li ci jiitu mooy sant yàlla subhaanahu wa taala comme ni ko sëñ bi waxee mhm. alquran moom njàmbaare du ko maye de. maanaam nit dina ko mokkal ba mu yàgg mu tiim ko naan ndax man lii man maa ko mokkal. des mu dal la daal. waa nga tiim bi ndax naan lii nii man mokkal naa ko. ndeysaan ndeysaan ndax waxuma bëri gi rek waaye tabaarkal la daal. est-ce que moo tax képp koo mokkal rek da ngay xam ni. Euh, est-ce que li ñuy wax bil munaasaba nii dafa am benn waay ab arab la nag. Mm-hmm. mu gis euh, koo xam ni du arab. Mm-hmm. mun nañ ni ci beneen xeet la bokk. Mm-hmm. mu gis ko muy jàng alxuraan. mu laajte mu ni ndax kii daa dégg araab ñu ni ko déedéet moom mu yéemu ci ku déggul arab mm-hmm. ba pare nekk xale teg ci naka la mën a fexe ba jàng li waxatuñ di ko mokkal mm-hmm. te bu ko laajee noo tudd sax du ko xam xamu ko ci arab soo ko ni woon baatu noo tudd ci arab boo ko laajoon xamu laay dëgg la ce qui veut dire que ni euh, wax dëgg yàlla ndimbalu yàlla nekk ci nekk yàlla ni woon wala qad yassarna al-qur'ana li-dhikri fa hal min muddakir dëgg la loolu moo jiitu ci liggéey bi ginnaaw loolu it ci mm-hmm. njiital sëñ bi waaw ak euh, góorgóorlu ñi nga xam ne ñoo koy jàppale ci liggéey bi ci secteur yëpp nag ndax jàng moom comme lañ ñu ko xamee jàngalekat bi day def rôlam waaye ki nekk ci waañ ba di togg day def rôlam ndax bu cin la ta tardé woon jàngalekat ba du jël du tal jàngale kadaalika kiy jàng yi du tal jàng ka nekk ca wàllu seet ga ñoom ñëpp ñooy boolewu ba yàlla subhaanahu wa taala def tawfiq boobu dëgg la donc tawfiq boobu nag moom la yàlla moom la ñu yàlla defar ren muy 118 xaafiru waaw ci jamono ji nga xam ne moom la ñuy dund ni ko sëñ bi waxee ginnaaw mesures yi nga xam ni moom lañu ñuy jël. Mm. ren mu ngi taxawal visite parent yi. waaw kadalika euh, li nga xam ni moom la waajur yi doon indi. Mm. ñu arrêté ko donte foofu it ñu yëgle xamale ni sëñ bi ci jàmbaaram wala ci góor góorgóorloom ak tawfiqu yàlla subhanahu wa taala waaw lépp li nga xam ne waajur yi doon na ko indi doon na def participation ba mun koo ba mun koo kiiwal loolu lañu dalal ci xelu waajur yi waaw maanaam eh, la nga xam ne mu lañ daan faral di def ci mburu ya nga xam ne waajur yeeka daan faral di indi seen i ndongo wala yu mel noonu waaw sëñ bi ci ñàkku boppam la doon faral di jënd ak ni ñu toll deux cent deux mille personnes ak ñeneen ña nga xam ne ñoo fa nekk te mun naa boole wuñu leen ci lim ba ci côté liggéeykat ak yooyu nga gérer leen côté boobu yëpp mm-hmm. diiru ay weer loolu wax dëgg yàlla it euh, lu mat a xamal la xamle la te it euh, waajur yi dalal ci seen xel maanaam tooguñ rek ni leen ba bu leen indi dara ba pare toog di seetaan seen njaboot waaye am na loo xam ni daara ji mu ngi ko doon jéem a mu ngi ko doon jéem a taxawal taxawal ko daal loolu la ñu def ren ba yàlla subhaanahu wa taala indi côté résultat ci côté tahfiz bi mm-hmm. euh, li nga xam ne moom la ñu def ren soo xoolee résultat yi nag ñaari wàll la comme ni nga xam daara ñoonu la séqoo waaw muy ñi nga xam ne ñoo nekk ci côté jàng bi pour mokkal mm-hmm. waaye bu xale yi mokkalee dañuy jugee si daara ji bi ñiy jàngee alquran ci daara ji la ba tey mm-hmm. waaye dañuy dem marxala boobu dañuy jugee étape boobu dem beneen étape muy jàng école bi di franco arabe foofu it euh, yàlla subhaanahu wa dogal na ak li jafe-jafe yi am jàng bi taxaw it mais laataa loolu yàlla subhaanahu wa defoon nañu am fa ay jéego yoo xam ne defoon nañ ko fa. waaw ba ab lim bu bëri ci programme bi nga xam ne moom lañ fa waroon a jàngale. yàlla ja dogal na it jàng nañ ko. loolu it mu mate sant yàlla bu baax a baax a baax a baax. kon daal lu mbir yu yaatu la. waaye li ci jiitu daal mooy tawfiiqu yàlla moo moo ci moo fa ñëw. ginnaaw ak lu ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci liggéey bi. dëgg la incha allah. Euh, waaw jërëjëf Hajj Malick léegi dama lu bëgg a laaj yow at bi ngay mokkal foofu ñaat seen nombre ñaata la woon at bi may mokkal xam naa dama <laughs> a day xaw euh, teelu ñaata lay doon mm-hmm. mais fekk jamono jooju nag yeggaguñu woon ci auteur bi nga xam ne dañuy am ay cent ak yooyu xam naa ni jamono jooju daal ay vingt côté trente yooyu noonu la ñuy daan noonu waaw léegi ñu ñëw ba ci cent dix huit waaw yooyu noonu la daan faral di jigéen daal loolu mooy wane ne yëf yi mu ngi màgg rek loolu laa bëggoon wane waaw jamono jooju ay vingt jàpp trente daal naa ni du sori côté boobu léegi at mu jot ñu génnee cent dix huit alhamdulilah rabbil alamin macha allah te ragal nañ ñoo ñu wàcc noonu ah, balaa déwén ñoom it dañuy ah. dañuy dinañu ëpp cent dix huit incha allah incha allah yàlla ba waaw léegi euh, Cheikh Mouhamad Baara mm-hmm. léegi nag euh, ku tudd góor tudd jigéen nel muslimina wal muslimaat mm-hmm. ndax euh, mokkal gi moom ngeen ko jagleel xale yu góor yi kese góor ñi rek ñooy mokkal mm-hmm. wala jigéen ñi tamit am nañ ci part beneen bi aussi ndax mag dana fa mokkale wala euh, mokkal bi moom amul programme mu mag mu jàngul woon bëgg mokkal alxuraan hmm. euh, loo ñuy wax foofu waaw euh, daara ji naka jekk dafa mas a boole góor ak jigéen hmm. ñaari donga la juddoo hmm. te góor la woon ak jigéen 1995 95 waaw Euh, ba léegi nii góor ak jigéen ñoo fay nekk donte dañuy respecté li ñu islam sant ci xàjjal la diggante góor ak jigéen mm-hmm. euh, ren nit ñi mokkal euh, maanaam am na ci fukk ak juróom benn ci ay jigéen mhm. yoo xam ne mokkal nañ mhm. léeg nag ma tooñ leen di leen yéen moom oh, waaw xanaa rijaalu xawwaamuuna ala nisa war ngeen ko gëm nag léegi <laughs> macha allah macha allah ci téeméer ak fukk ak juróom-ñett yi ñoom am nañ ci fukk ak juróom benn oh, waay macha waaye nag euh, li mat bàyyiloo xel foofu mhm. mooy ni ñoom xalakaat yooyu Mm-hmm. ay jigéen rek ñoo koy jàngale. maanaam jigéen ñi jigéen rek a leen di jàngal fi ñu dëkk aussi dañ leen beral seen dëkkuwaay. waaw foo xam ne nisaaw yi doo nga fa nekk. fi ñu dëkk moom man rek a fay dem. waaw <laughs> man rek yow rek waaw. ak seen i sëriñ yu jigéen ñoo fa dëkk. waaw gañ alhamdulilah. loolu eh, noonu noonu noonu la noonu la tëddee foofu. Mm-hmm. Eh, beneen laaj bi. waaw léegi ndax mag. mag moo xam ne eh, waaw bu njëkk. Mm-hmm. daara ji dañ daan jël ba ay mag. mais nag ak euh, jamono yu mujj yi waaw ak euh, mbir yu bari yu ñuy wax ci daara yu nangam dëgg la dëgg la waaw loolu moo tax nag ñu limité at yi waaw fukki at ak ñeent daal ku ko passé waaw dootoo mën a dugg dëgg la loolu euh, noonu la ñuy doxale waaye bu njëkk nag ay mm. mag daan nañ fa daan nañ fa nekk waaw daan nañ fa nekk bon léegi 1995 la daara ji judd diggante boobu ak léegi nombre bi ngeen am ci ay ñu mokkal takk ngeen ko waaw mu ngi mu ngi noonu sax ci journal bi. waaw léegi masalan 1995 euh, la daara ji juddu. Mhm. ren ji sax. Mhm. ak ni ko yàlla dogalee. dañu fomm ndaje mi ngi daan def. Mhm. waaye ren moo waroon a nekk at bi ñuy feete fukki at ak juróom yi daara ji am. rebond xarnu. 25 ans 25. Euh, 25 waaw waaw. ren ji lañ ko waroon a. feet feetal waaw. Euh, thème bi nekkoon rebond xarnu. fi xidmatil quran waaw waaye ak li yàlla dogal loolu mënul mënul nekk dëgg la boobaak léegi mille quatre cent soixante treize mhm. ñoo fi ñoo fi mokkal alquran waaw waaw mille mille quatre cent maanaam junni ak ñeenti téeméer ah. ak juróom-ñaar fukk ah, ak ñett ah, buñ ci boolee limu limu ren limu ren bi ñoo ñoo fi mokkal maanaam ba léegi junni junni junni nit ñoo fa mokkale alxuraan. waaw ak ñeenti téeméeri nit. ak juróom-ñaar fukk. ak ñett allahu akbar ñoo fi mokkal alxuraan. waaw eh, ki nga xam ni maanaam moo doon ndongo ndongo bu njëkk bi. Mhm. alhamdulilah moom continué na jàngam ba léegi mu ngi ci marhala doctorat. Mhm. xam nga ñaar quatre ak léegi taxul mu yàggu. waaw dëgg la dëgg <laughs> fan lay defee doctorat. mu ngi mu ngi jaamia islam. macha allah macha allah macha allah kulliyatul quran kulliyatul quran man madina dama fa gis ay xale yu bari. Ah. ñoo xam ne ay étudiants lañu ci daara ji lañ jàngee. foofu la ñu mokkalee waaw. Ah. Aj Malick li sëñ bi wax nag euh, résultat bu rëy la. Mm-hmm. quinze ak léegi nga am junni xufaas ak ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñett. mais daanaka lii nit xel bu ko xaw a nangu <laughs> Cheikh xayaal yi wallaahi waaw ah, Cheikh xayaal yi su fekkoon dañuy xool ci capacité nit waaw ah, ma nit moom ah, suñuy natt ci ay nattuwaaya nañ vingt cinq ans xam ni dund nit la waaw te nit ku ko am dañuy jàpp ni day doog a dugg dugg àdduna sax lañ koy xaw a waxee dëgg la Euh, su fekkee yàlla def na nga dund loolu ci jàngale mun a génnee résultat yi mënees naa wax ne cheikh xayaal yi su fekkee dañuy def ci nattale nit waaw waaye nag comme niñ koy faral di waxee rek alquran moom hmm. ku ci nekk ku nekk yàlla fekk si la la yàlla moom euh, maanaam nit moom looy nekk góor góorlu ci sax hmm. yàlla mën na la cee fekk si waaye surtout téeréem bi dëgg la dëgg képp ku ci nekk hmm. maanaam dañuy faral di wax ni nit nitu nitu ordinaire boo doon xëy ci moom di ko nekkal ci li mu bëgg bu yàggee rek nit kooku am fu mu la teg la ba du bëgg ku la laal ba mu bëgg ku la def dara mhm. fa kay fa yàlla mi nga xam ne nag moom moo moom moo sàkk ñëpp waaw ba pare yit ngay xëy ci ay ngay xëy ci waaram loolu laa sakka ni yàlla du la seetaan dëgg la su fekkee nekk nga ci loolu te mu ànd ak sellal nga xam ne yaakaar nañ ko lool mhm. Euh, wax dëgg yàlla yàlla dina la ci fekk si yàlla moom moo wax ci nihayatu suratu euh, ankabut ni walladina jahadu fii naa la la subulana mooy képp koo xam ne day góorgóorlu jëm ci ma nekk ci sama yoon yàlla nee na dina la ubbil yoon boobu le nag yàlla moom bu la xasee ubbil yoon bi moom doo xam fi muy yem moom xamal fi ngay tàmbalee rek mais fi ngay mën a yem moom doo ko xam mukk ndax moom bi xeyri xisaab lay faral di jëfandikoo dëgg la dëgg la buy joxe moom du du ni tey xool naan lii laa joxe wala lii laa kii lii su ma joxee su wa nan la war a toll ak ginnaaw ni tey def calcul yooyu. Mhm. mais yàlla moom euh, jalla ani shabihi wa nadir moom su boobaa day joxe rek bi xëyri xisaab. nag loolooy waral. Mhm. Euh, nii ko daara ji defee boo doon xoolaat yeneen i daara yi du ñàkk ñoom it ak diir bi ñu dund. Mhm. di nga gis ni def nañ ay résultats yu ni mbaa mu jege ko. waaw loolu yëpp nag day wane ni rek yàlla moom euh, képp ku ko nekkal mu mm-hmm. nekkal la dëgg la dañuy faral di wax donte dañ koy tuddeeb xadis mais man kaana lillahi kaana allahu lahu mm-hmm. di ko faral di wax ci yenn yi mm-hmm. waaye it loolu moom mooy dëgg mais képp ku nekkal yàlla yàlla nekkal la dëgg la loolu moo xam da nga koo nekkal ci téeréem bi muy alquran wala si émission yi ngay def nga ci sellal ko ut ci yàlla liggéey bi ngay liggéey nga sellal ca ut ca yàlla foo ci munti nekk rek yàlla dina la fekk si te bis bu la fekk see rek euh, sa dina dal daal ndax dina dina la bégal loolu nag moom lañ jàpp ni moom moom la yàlla defal tawfiix diggante vingt cinq ans muy quart de siècle bi nga xam ni moom la ñu def mm-hmm. yàlla jox ñu résultat yi ñu ñaan nag bu ñu demee bay feetal demi siècle cinquante ans fekk <laughs> yàlla dogal ay millions ñu ni ay millions millions alquran wasaaroo na ci wasaaroo na ci dënn julli ñi te daara ji la incha allah ñaan yàlla yàlla defal ñu tawfiix incha allah incha allah euh, Cheikh Mouhamed Lamine Bara mm-hmm. euh, daara ci alquran daara fii ci daara alxuraan fii ci Sénégal. Mm-hmm. ànd na ak coow lu bari. Mm-hmm. yalwaan manque ak taalibe yaa ngi yalwaan ak seen nekkin baaxul ak seen nekkin rafetul ak. Mm-hmm. mais résultat bi nga joxe. junni taalibe. ak ñeenti téeméer. ak juróom-ñaar fukk ak ñett. ñoom ñëpp mokkal alxuraan. ñooñ xanaa ñoom de daara ji dina bari potu yalwaanukaay de. <laughs> wala wala quartier bu ne dafa am nombre bu ngeen di yebal ne ni leen fii ñi ñii dem leen Grand Dakar ñii dem leen fas ñuy dem <laughs> nan la ñuy def ba ba ba dund waaw eh, alhamdulilah li nga wax eh, Oustaz Lamine mhm. dëgg la mhm. daara ci senegal bari na coow mhm. lool ay damay wax sànni ni du ci Sénégal rek naka jekk nag itam daara moom daa mas baaxoo loolu ndax eh, daa am ñu ko bëgg am ñoo xam ni xëy na safaan ba la am ñoo xam ni bañuñu ko waaye dañ koo réere dëgg la eh, olof nag day wax ni koo xamul léeg-léeg éey nga koy wooye dëgg la loolu daf na bari nag ci suñu réew mi trop mm-hmm. Mm-hmm. bari na ñoo xam ne ñu ngi wax ci daara mm-hmm. mais xamuñu dëgg dëgg daara eh, ndax man mii ci daara la daara moo ma meññ dëgg la fi ne nii xalaatuma benn yoon sama doom màgge ci feneen fu dul ci daara. dëgg la xam nga bu fekkoonte nii gis naa fa safaan ba. waaw kon du ma bëgg sama doom delluwaat. dëgg la kon xëy na ñàkk réere googu léeg-léeg daf ci am. Mhm. laaj bi nga laaj nag. Mhm. Euh, daara Ahmad Sakhir Lo moom bu mu juddoo ba suñu jonni tey mhm. taalibeem mësul dem ci biti. waaw mësul dem ñaani lekk wala mu yalwaani ko Mm-hmm. loolu masul am ndax dafa bokk ci règlement daara ji mm-hmm. waajur bi am lu mu participer mm-hmm. pour ñu mën a téye ndongaam doomam jàngal ko xëy nag participation rek lay doon comme ni ko suñu benn mag di waxee oustaz euh, Babacar Seck waaw hafizahullah muy wax ni ba fi ay doomam di jàng danaan wax euh, njëgu mburu maanaam li muy joxe bu ñëwee danaan njëgu mburu gi waaw pour wane ni rek loola matul dara. ndeysaan ci li li ñu war joxe moom dafa xam alxuraan. dafa am xam xam gëdd alxuraan macha allah kon waajur bu ne dañ koy wax. Mm. na joxe dix huit mille. yooyu nag. Mm. moom la daara ji di jéem a organiser. Mm-hmm. pour fay ci courant. waaw fay ci ndoxam. Mm-hmm. Euh, fay ci ay liggéeykatam. Mm-hmm. Euh, jëndal ci euh, taxawu ci xale bi mu di ci ndekki di ci añ di ci reer. ak yeneen yi nga xam ni ay ordonnance <coughs> wala yu mel noonu mhm. loolu la daal ji di jéem a organiser mhm. pour man ko mais mais mais dix huit mille du dara <laughs> par rapport un mois nga nar cee añ nar cee ndékki uh-huh. nar ce reer uh-huh. nar cee njoganiku uh-huh. léeg boo fajee boo feebaree ñu wutal ci ay garab dix huit mille loolu loolu du dara dëgg ah? lu wér du dara waaw ndax xëy na lu yàlla barkeel rek mu mu barke waaw waaye tey su fekkoon te ni daara Ahmad Sakhir Lo li mu yor ci ay locaux. Mhm. daf koy loué. Mhm. kon yaakaar naa ni. dana eh, métti trente mille sax. waaw du ko laajee sotti waaye comme que nag ñun suñu góor ga see Ahmad Sakhir Lo. Mhm. rahmatullahi alayhi. Eh, daf ñoo jàngaloon dars bu am solo. mooy su fekkoonte ni am naa ma man. ndonga li may jàngal dama koy fay di fay baayam ak yaayam. est-ce que su mokkalee mu dem ma dem bu ñu gisee war bu dul yawmal qiyaam. allahu akbar moom loolu da ko daan booyal ci suñuy nopp lu bari. allahu akbar kon nag xëy na su fekkente ni jël nga dix-huit mille te doo ci génnee luyaas. Mhm. ak euh, woy defal yàlla yi nga xam ne ñu ngi ci réew mi wax dëgg yàlla diñ jàppale bu baax mhm. loolu mën nañ cee organiser wu nab nabi ci mhm. ba xale yi mën cee dund jàng ci parce que loolu rek mooy li ñu itteel leneen li moom itteel dëgg la loolu moo tax ñu yemale ko ci dix-huit mille ba mu diis lool waaw ba nit ñi duñu mën a jàng alquran waaw ndax it euh, jubluwaayu daara ji bi ci njëkk mooy mhm. fexe ba alquran dem ci doomu dënd jullit yi waaw kon nag da war a fexe ba mm-hmm. ki néew doole man caa mm-hmm. joti que mm-hmm. ki am doole itam man caa joti boo defee noo xam ni eh, ki am doole rek moo cay mën a joti waaw bu boobaa kon yow jubluwaay yi la tax a jóg waaw te yow boobu mooy première léegi commencé nga ko ñàkk xaalis dëgg la dëgg la loolu mooy dëgg la mooy ñuy mën a leeral foofu dëgg la Haj Malick li sëriñ bi wax euh, leer na xam nga euh, daanaka fii ci réew mi boo ne di nga jël xale joxe ko weer wu nekk dix-huit mille ngay fay dundam ak lekkam ak njàngam ak lépp aju ci wax dëgg yàlla loolu tuuti na ba ëpp par rapport ak nit ni muy dundee waaw euh, tuuti na de wax dëgg yàlla euh, lu tuuti la mm. ndax euh, bu ñu xamee jàngukaay yi nekk ci réew mi mm. te du sax ay internat waaye ay préscolaire lay nekk waaw ay jardin sax mais mën naa ëpp mën naa ëpp loolu ci weer nga xam ni yow sa doom mun naa am suba gi rek lañ ko assurer waaw te buy ñëw day indaale ndékkeem waaw bu paree dem añee ji kër ga defee fa lépp <laughs> waaw <laughs> teewul dinañ laaj lu ëpp loolu fuuf kon bu ñu la nee nit dinañ ko téye hmm. euh, weerub yàlla ñu laaj ko ci 18000 kon euh, wax dëgg yàlla da ngay xam ni tuuti na waaye euh, tawfiiqu yàlla man damay faral di wax ni di pisang ba lee xam naa du ñàkk di ko seelu ndax am na loo xam ni su fekkee da ngay def nattu nit rek. waaw an ba tey jii da nga naan lii mu ne. mënoo koo gëm waaw. Ah, ndax bëri na koo xam ne tey boo ko ne woon dix huit mille lay kii daan la dix huit mille ba léegi am na ñoo xam gëm wala ñoo xam ne moom dinañ gëm ni dix huit la waaye dinañ jàpp ni dafa am kon feneen foo xam ni dafa am fu ñuy tibbee ñëw di di ko ci def kon moo tax nit ñi mën a dund waaye loolu lépp amul ah, li am rek mooy yàlla subhanahu wa taala moo def tawfiqa ndax tey buñ nee la lu mel ni kokki nit ñaa ngi fay dund te fayuñu dara. waaw kon bu ñu la fii nii mën na fee fayeeku dix huit mille. te continuer di ci dund. waaw yàlla mën na mën barke bi la barke waaw. barke man daal moom eh, lu woo li ñuy wolof di léebee it ba tey nii. Mhm. Eh, barkeel lay gën bari le. waaw dëgg la. Eh, ndax nit bu lee dina doyal ba joxe. waaye ku bari la yi mën naa séenu lu keneen yor te fekk mu ngi yor lu dul jeex. dëgg la moo tax euh, mag ñi bu ñu daan ñaan yàlla barkeel lañ ñuy ñaanal ñu ñaanal mukk yàlla yàlla nga bëri la waaw mais yàlla na la yàlla barkeel wala yàlla nga barkeel la lañ lay faral di ñaanal ndax barke rek am solo moo tax it 18 euh, millions su fekkee sellal lal na ko mm-hmm. kii jàngale sellal mm-hmm. waaye jur bi ka fay indi it doomam euh, jublu ci rek ngir xam téere borom bi wattu ko mm-hmm. fas yéene koo jëfee loolu rek kii ko ci boobaa 18 millions millions yàlla dina ko barkeel ba ñu mën cee dund ab diir dëgg la waaw loolu moom mooy solo si. waaye nag euh, ci bët bi nit moom tuuti na loolu wax dëgg yàlla. dëgg la dëgg la <laughs> euh, jërëjëf Hadj Malick ci leeral yooyu. Eh, eh. mais Cheikh euh, Mouhamed Lamine Baara. Mhm. xam nga daara ji nag wax dëgg yàlla. man bi ma xoolee yi ñu def ci kanam daara ji dafa rafet. Mm. macha allah daara ji tabax yi dafa rafet. Mm-hmm. jumaa ji rafet. mais li ma gën a frappé. Mm-hmm. mooy maktaba yi nga xam ne am na fa mooy bibliothèque yi foofu. Mm-hmm. bon lépp lu ñu soxla ci wàllu modernité ci wàllu informatique lépp lépp mu ngi ci daara ji waaw vraiment euh, nan ngeen amee daal bu euh, vision bu sori boobu noonu ba daara ji dit ki day mokkal alxuraan ba pare jamonoom du ko raw waaw boo seetloo jubluwaayu daara ji ñeent la waaw boo xoolee bi ci bi ci mujj ci suuf mhm. mooy euh, soppi soppi dégginu ñenn waaw wala gisinu ñenn ci daara waaw loolu nag dafa bokk ci jubluwaayu daara ji moo mm-hmm. tax euh, dès le départ li mm-hmm. nga xam ni jamono maanaam nit ki jamono mënul dem bàyyi ko ginnaaw mm-hmm. way woy xarala yu bees yi loolu moom daara ji da cee teel a jóg xëy na euh, léegi lañuy gis sax ay saal di ko wane waaye depuis 2007 la daara ji eh, amoon ñaar fukki machine mm-hmm. non fukki machine mm-hmm. fukki machine yoo xam ni maa ngi ko leboon fii ci Sandaga mm-hmm. di fay weer bu nekk mu fay cent mille pour xale yi commencé ñu di leen tette ci way xarala bees waaw eh, kon loolu moom teel nañ cee teel nañ cee jublu eh, xam naa li nga gis ci kanam journal bi nag waaw loolu du batiment boobu du mooy batiment daara ji. waaw mais bi maquette la. waaw boobu maquette la. waaw bi la mais bâtiment daara ji aussi rafet na nag. ma allah <laughs> waaw ñaawul waaye nag. waaw ma ñaawul waaye nag. waaw fii leen bëgg a àgg. waaw dëgg la. waaw ndax euh, jàpp nañ ni euh, luy rafet daal luy taaru. Mhm. donga moo ci yey. Mhm. waaw ndax moom moo yor kàddu borom bi ci kaw suuf. mais maquette bii nii moom ñaata ñaata ndongo la war a mën a jël wala lii daanaka ab dëkk bu ndaw lay lay lay niru de. waaw lii moom dana jël lu bari ndax. Euh, ñu ngi soxla ci suuf. Hmm. cinq hectares. Hmm. Euh, itam xam naa ñu ngi yëkkati suñu kàddu. Hmm. Euh, ñu ngi jéem a jokkoog nag ñi ngi war a jokkool. kilifa yi waaw waaye nañ ci boole wax ji. ndax xëy na am na kuy dégg. Euh, alquran ñor ko mhm. mu man ca dara mhm. doonte ñun duñ ko xam dëgg la te jàpp naa ni ku ci dugal sa kàddu mhm. wala sa man-man ba lii sotti nga am tuyaaba joo xam ni dëgg la ëllëg yowmal am moom buñ la ko sippilee waaw dana la dana la mat cinq cinq hectares ngeen fa soxla cinq hectares la soxla waaw pour mën a def bâtiment bi waaw bâtiment bi nag dafa ëmb lu bari Eh, ndax jàkkaa ngi ci biir mhm. ñaari jàngukaayu alxuraan yu mag mhm. eh, mu ngi ci biir dispensaire mu ci biir bureau yi mu ngi ci biir mhm. école tafsir bandañak mu ngi ci biir dëkkuwaay góor ak jigéen waañ week lekkukaay yi usine bu ndaw boo xam ni dañ ci war a day day defaraat ndox yu yàqu yi ba ñu mën koo utiliser ci beneen côté Euh, ay centre yoo xam ne dañuy jàngal xale yi métier. Mhm. yooyu yëpp mu ngi ci biir biir. maanaam daal du daara kese kese mais ay société la. lépp a ngi ci yëpp a ngi ci biir dañoo jàpp ni xale bi. waaw warul génn ci daara ba pare. dem di taxawaal dem di taxawaal. dëgg la kon nag. Mhm. faaw wut ay matuwaay yoo xam ni. Mhm. Eh, xale bi bu paree njàng. am lu mu def. dëgg la su demee ba njàngam mënatu la demit mhm. ñu am fuñ ko orienté ba bu génnee. mu jàngi mécc day jëriñ penc mi. waaw waaye penc mi du maanaam. Mhm. Euh, day jëriñ penc mi waaye du penc mee koy jëriñ. jërëjëf ah. jërëjëf Aj Malick ni li ñu dese nag bëriwul. Ah, waaye sëñ bi daanaka dafa tënk lépp. sax yan kàddu nga ci yokk. waaw euh, bi si jiitu rek mooy léegi dama gis fii ci biir ñu wax ne daara ji 2000 taalibe ya fa nekk yëpp. lépp lu ñu soxla ci mburu mi ñuy ndékkeeg lépp da ngeen am seen boulangerie bopp maanaam daara ji daal demul di jëndi fenn mburu moom day jël mburu bay jaayaat mburu ci biti ak it ak it waaw euh, daara ji de moom comme ni nga ko xamee euh, dafa nekk boo xam ni maanaam moom yemul ci jàng jàng jàngale kese mm-hmm. gëm ni euh, ci la war a yem mm-hmm. mais dañuy gëm ni daara lépp loo xam ni mm-hmm. acte de développement la mu mun cee participer côté économique côté social daara war na ko cee def war na cee dugal loxo loolu it moom mooy rôlu daara ci société société yu njëkk yi nitu daara yaa ko doon yore ñoo ko daan def ba suñu réew mi sax ba muy doo ba muy doon réew dëgg waaw xam naa ni su ma ko waxee noonu dina xaw a dinañ xaw reetaan waaw kay foofu laa ci nam foofu laa ba nga xamee ni kii ya fi nekkoon leer ni suñu maam ya ña daan dem ca àll ya gor nga xam ni jàng rek ka nekkoon seen métier ak dem tool ya ñoo daan faral di yore économie réew di dimbali nit di dimbali nit ñi donc daara moom loolu mus a loolu boo ñëwee ba jamono ak li modernité di laaj muy yeesal mm. mm. dëkk bi di soxla mm. nga orienté fa loolu si loolu la daara ji ni pour pour pour mburu dañ koy soxla muy boulanger daara ji am boulangerie boppam boo xam ne moom mooy livrer daara ji ay mburu yi nga xam ne moom lay soxla ci jour bi waaye it daara ji ci yaxantu comme niñ ko xamee sànq comme dix-huit mille ngay joxe dix-huit mille moom Euh, boo ci yemee moom kese yi dina xaw a kii. ndax daara ji di xaw a am yenn yu muy yaxantu. Mm-hmm. nga xam ne dina am ay revenu yoo xam ne dina ñëwaat ci daara ji. noonu it mu am ab boutique. Mm-hmm. kadalika euh, ak yeneen ak yeneen yi nga xam ne am na muy tool tool beeg yu mel noonu. beneen beneen bi kii bi nga waxaat tamit muy côté modernité bi ba tey. Mm-hmm. muy bi wala centre d'informatique bi yooyu yëpp. day dugg ci cadre boobu rek. bibliothèque bi ñaata livre ñoo fa nekk. li mu war a jël pour l'instant doonte pareeguñ ba léegi ndax comme ni nga xamee ni téere jafe na ci côté am mais jafe na ci côté njëkk mm-hmm. moo tax da ngay am nañ daal ab eh, lim bu takkoo takku ci ay téere mm-hmm. waaye nag dox jëm fa ñu jëm fa ñu bëgg a yegg muy douze mille ouvrages waaw le douze mille téere moo la bibliothèque bi war a jël bibliothèque bu mag a mag la boo xam ni trois langues yëpp dafay nekk mm-hmm. anglais français comme arabe bi nga xam ne mooy langue de base bi am bibliothèque numérique numérique nga xam ne it mooy euh, ay ordinateur la nga xam ne moom mi ngi fa ba tey nga xam ne képp koo xam ne am na lu mu bëgg a gëstu ci côté euh, ordinateur it dina fa nekk donc loolu mu nekk ab bibliothèque bu mag a mag bi nga xam ni mi ngi fa ubbeeku pour waa daara ji ñi fay def seen gëstu waaye ubbeeku it pour Sénégal ak bépp foo xam ne gëstukat mi boo ñëwee incha allah dinañ la orienté ba nga kii dafa am carte carte bi 3000 la annuelle man loolu it ab xéewal la dafa nongo daarawee loolu dinaa <laughs> am na carte boo xam ne daal boo ko kiiwee moom c'est annuel 3000 francs nga pour kii ko incha allah jërëjëf Hadj Malick Cheikh uh-huh. euh, liggéeyu daara ji uh-huh. rëy na rëy joo xam ne xajul sax ci ay weer di ko wax waaye defe naa li ëpp solo tënk nañ ko euh, ban kàddu ngay yëkkati jëmale ko ci réew mi rawatina wayjuru donga yeeg ñëpp ñi nga xam ne tey turu daara ji yegg na fu nekk ñu sopp daara ji bëgg daara ji sax xëy na te mënuñoo yegg si ci mm-hmm. yaw waaw dëgg la Oustaz Lamine xam naa kàddu yi ñuy mujjee mm-hmm. euh, mooy sant bu baax waajur yi mm-hmm. ndax xam nga daara ak ni ñu koy wax nga ko léegi coow li ci nekk lépp mhm. ak covid 19 bi mu agsee mhm. su ma la waxee ni daara Ahmad Sakhir Lo amul benn parent bu mas a wootee mhm. di laajte sax doomam doomam nan la def ñëpp dañoo toog rek doyloo yàlla wallaay bu kenn rek moo fa ma benn parent rek moo fa mas ñëw jël si doomam ni day xaar ba feebar bi wér mbir yi wér <laughs> waaw kenn. waaw foo xam ni ay mille personnes ñoo fa daje. waaw kon résultat yi nga gis nii. Mhm. bokk na ci dogu ak euh, ak wóolu yàlla gu waajur yi wóolu seen borom. allahu loolu ñu ngi leen ci sant bu baax a baax. Mhm, mhm, euh, di jaajëfal waa réew mi yëpp. ndeysaan dafa mel ni. Daara Ahmad saxirloo Lo borom bi daf koo def ci xol yi. nit ñi waaw ñu bëgg ko waaw dëgg la. maanaam dañuy woote di ñaan ba mhm. yow ci sa bopp sax dangay mujj di rus mhm. kon waa réew mi yëpp ñu ngi leen di ñu ngi leen di jaajëfal mhm. di di rafetlu ànd ànd bi ñu ànd ak ñun di ñaan nag ci réew mi yàlla jële fi lii feebar bi waaw waaw yàlla jële ko fi e, te jàpp naa ni daara yi li ñu wàcce ci ay kaamil li ñu wax allahuma Eh, gëm naa ni incha allah dina fi jóge dëgg la jërëjëf eh, waaye di ñaanit nag mm-hmm. nañu tuub delluwaat ci suñu borom dëgg la te moytu wuute ak suñu borom dëgg la wóorul dëgg la di jaajëfal nag bu baax a baax jërëjëf ñi jiite réew mi mm-hmm. ndax gis nañ ni sonn nañu lool bi mm-hmm. covid bi commencé léegi dëgg la li ma neex ci li ñu li ñu li ñu gën a def li ma ci gën a neex mooy li ñu ni dañuy dimbali woy néew ci doole yi loolu neex na ma loolu waaw euh, waa kër docteur itam ñu ngi leen di jaajëfal bu baax taxawaay yi waaw dama ni seen euh, conférence de presse la wala seen kàddu googu ñuy wax diiseer waaw loolu rek doy na ab liggéey wallaay ndeysaan kon man dama leen a yërëm te xam nga loo xam ni ñëpp a koy daw wallaahi waaye yow saa yoo xëyee ñun la ci ngay xëy ci ngay gont wallaahi te nit ñi dee leen ko daw waaw kooku kooku wax dëgg yàlla. waaw man sa man sant naa leen lool. ci turu daara ji jërëjëf jaajëfal naa leen. jërëjëf sëriñ bi. Ah, loolu daal lañ doon mujjee ci ay kàddu. jërëjëf di jaale nag mbooleem. ñi nga xam ne waaw. génn nañ fi àdduna waaw dëgg Malick Sy waaw ndeysaan eh, Cheikh Ahmad Tidiane Seck waaw waaw ak ñi nga junju waaw dëgg la suñu kilifa yooyu Bamba Ndiaye waaw ak sa sa taalibe Cheikh Mourtada Gueye ndeysaan ak Mouhamad Sanu Diallo waaw dëgg la dëgg la yëpp ak ñeneen ñi ñu yëgul wallaay leen di jaallo mhm. di masawu seen i kilifa dëgg la di masawu waa réew mi yëpp jërëjëf jërëjëf salaamaaleykum jërëjëf kon mbokk yi tey lii lañ leen indiloon waaw xam nga alxuraan moom bu soxlaa ñëpp ay ñàkk ndax mooy faratay farata yi tey li ngeen fi dégg dina dugal mbégte ci seen xol di ngeen xam ne alxuraan ci réew mi dafay jëm kanam day gën di am doole day gën di am tànk bu dëgër euh, delluwul ginnaaw macha allah ci côté boo xool rek yàlla muy ngi barkeel njàng mi xam nga ñu ne la ren diggante daaw ren téeméeri xaafis ak fukk ak juróom-ñett daara ji génnee na ko dëgg-dëgg loolu feet maanaam feet feet gi mu naroon a doon dafa dafa luñ ko luñ ko réer rek dañ ko waroon a xeeb mais lii la yàlla indi Cheikh Mouhamad Lamine Baara yal yàlla barkeel liggéey bi yàlla sàmm la ak équipe bi ngay liggéeyal ba naal yi nga yor yëpp nga dem ba nga xamante ne nii di nga ci gis lu sa njort incha allah euh, xolu jullit yëpp tey mu ngi aju ci am Maad Ahmad Sakhir Lo ñëpp ko bëgg ndax résultat yi muy def vraiment wane na dëgg-dëgg daara ni muy mel yalwaani yi taxawaalu ci mbedd yi loolu ku ko taxaleeg daara jamono ko indi rek mais amul rapport ak daara wax dëgg yàlla moo tax daara ju mel ni Ahmed Sakhir Lo dañ ko war a jàppale hectares yi nga xam ne moom la soxla muy cinq hectares def si projet bu rëy bi nga xam ne doomi réew mi fay jàng doomi sénégalais yi doomi gambiens yi doomi guinéens yi wax dëgg yàlla cinq hectares boobu euh, li réew mee ko soxla loolu waruñ toog sax di ko di ko fàttali di ko fàttaliwaat gannaaw bu ñu jëlee ay hectares yi di ko jox nit boo xam ne ci turu boppam kese la jëm ak ak nangam ak nangam wax dëgg yàlla maa ngi ñaan képp ku dégg lii am kàddu yor dara ci suuf si li daara ji soxla nañ ko ko jox ba jox ko lu ëpp parce que résultat bi lu na fàng kenn du ko jeex yal na yàlla taxawu leen yaa bi kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm ko minni alxubbu wa duaa dawman wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Votre émission matinale